salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet Lutte TV yëpp ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek di leen ziar di am mbégte contentement di ànd ak saa su ne say programme Lutte TV tey nag ñoo ngi fi Sandaga jënd si wuñu yére waaye benn champion lañ fi seet ndaanaan la xale la nag moo ngi ci làmb ji gars yi ko doon ko gis ay jamono ba temps yi ñu gis mu am combat waaye duñ def dara rek lu dul nuyu ko dalal ko bàyyi ko mu nuyu ñu koy seetaan si Lutte TV Thielly lañ koy wax mbër ziar naa la waaw ah, Boucar maa ngi lay fay ginnaaw bu sant yàlla ci lu ci yóneen bi sant suñu waar suñu di sant eh, tey di la sant yow mi quoi ci déplacement bi ngeen def ñëw fii maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm xam nga di sant eh, aussi fi nga ma fekk nii gars yi fi ne nii de waa Ndindi bi sama patron ñoom Mor Fall ñoom Pape Ndiaye Assane ñoom ñëpp maa leen di sant Mbaye ak Abdou di sant champion bi toogal toogal fii muy musa nekk eh, nekk écrit Dakar Plateau moom it maa koy sant bu baax xam nga di sant waa Sandaga bi ñëpp xam nga di sant waa écurie Dakar plateau ñëpp staff bi ñoom Mars Nguy Jon gaa yëpp maa ngi leen di sant bu baax plateau bi yëpp daal ñoom gën a naat kooba gaa yëpp xam nga aussi di sant euh, Grand Dias Grand Dias si Cap Plateau di sant euh, Grand Dias si Cap Plateau di sant aussi waa Colobane xam nga ñoom dongo seen gaa yooyu ñoom aas ak ñoom moomoo gaa yi jàpp nañu si combat yi bu baax a baax a baax xam nga di sant ñëpp daal di gërëm ñëpp waaw tey ñiy dégg Thiely wala ñi lay gis taxamuñu la tey boo doon wax Thiely kan mooy Thiely. waaw Thiely euh, euh, benn xal la rek xam nga bu jógee Bawal def euh, mbapat Bawal jógee Bawal ñëw Dakar xam nga di yëngu ci wàllu lam waaw. nekk daal koo xamante ni daal mën naa ne mooy xale bi nga xamante ne ni daal xam nga avant mu ñëw Dakar daal mën naa ne bëri na sax grand combat waaw man sama tur dafa maa jiitu Dakar quoi mhm. waaw. nga ñëw dugg si làmb ji est-ce que mën nga ñëw wax ban at nga dugg si làmb. maa làmb ji bi may ñëw ci làmb maa ngi ñëw 2010 2011 2010 2011. ñaata combat nga def si làmb. waaw fi mu ne nii noonu ma làmb moom maa ngi ci 14 combats. 4 euh, défaites 10 victoires. 4 champion d' hmm. waaw ñu gis ne dañ dañ toogoon ay jamono boo seetloo 2 ans yi nii daanaka da nga xawoon a laqatu mu mel ni bëri woon nu mu demee waaw 2 ans yi ma toog bëriwu ma dafa nekkoon loo xam ni dafa diisoon ci man trop. Hmm. waaw parce que dama toog année passée. sama papa euh, génn àdduna mhm. moo ko benn mag bu góor bi nga xamante ni moom laa amoon muy mag ci góor quoi mhm. ñoom ñaar sorewu ñu génn àdduna mhm. te xam nga loolu man àndut ak lam quoi ci laa toog nag xam nga may naa toog quoi gérer nekk li ma war a nekk ba ween ma doog a ñëwaat ci làmb ci nekk borom kër daal daanaka voilà noonu la fa demee ah. gis ne sa combat bëri nga ren sa diggante ak Agogo naka nga waajale woon comme ni ma ko waajee rek ànd ak samay mbokk. ànd ak gars yi waa Dakar Plateau ñoom Moussa ñi xam tey dooy xool Agogo tey Agogo bu dee diis ñii ñoo ko gën a diis foofu. ay garanaatin ñoom dimle ñoom Moussa mi ak yeneen gars yi. yor naa ñu ko gën a diis foofu xam nga ma ñëw rek làqu entraînement préparé ci ñoom. waaw. xam nga tey nag ñu bari nii boo toogee bëri woo xaj na man man man maa nekk nii xaj na day manque compétition wala leneen ak leneen lu mais man fekk na boobu maa ngi li ma a nekk te xam naa ne àggagoo yàgg yàgg bu ma ñëwee dama koy daan. Mhm. parce que amoon bu maa ko mhm. mhm. bi diiree ma daan bu gaawee ma daan ko parce que xam naa ne ma man moom mbër mënu maa jeexal moom. benn mbër mënu maa jeexal ci bëre. amul non ci mën a bëre. ak mën a bëre man bi ma fii ma nekk plateau booy xool presque ay mbër yu compétir kese ñoo fa ne ñii ngay gis ñëpp dañuy compétir. daam albeeg kon man xam nga bu dee wàllu bëree moom. Mhm. loolu agagoo mënu ma cee ant mënu cee andi lu ma jaaxal. Mhm. te boo gisee ndax combat bi te li tax mu xaw a demee noonu parce que ñi ko estafam quoi say Birahim Ndiaye kooku see yàgg na maa seetaan mbapat. Mhm. muy Grand Dakar bu fet dafa daan ñëw di arbitre eh, kon xam nga tey xam naa moo tax combat bi demee noonu. parce que tey caxawal boobu mu jéggi. poids lourd yu bari daane te da koo jéggi. kon nga war xam ne am na lu dugal ci boppam quoi. Mm-hmm. mais nag xamoon naa ne yàgg day tëdd. Mm-hmm. te xamoon naa ne it ci mboot laa koy daane. Mm-hmm. njool bu toll noonu nga mbootee ko noonu noonu. non parce que yàlla xam na ne benn xale boo xamante ni matul sax maanaam euh, bala maa wax sax damay nuyu waa Joal Joal. nuyu sama benn grand boo xam ne Joal Fadiouth la dëkk. gënam bi mu fa demee ban xale bu ndaw moo ne ma mboot nga koy daane mboot. Hmm. barke Serigne Bamba mu ne ma mboot nga koy daane. ndeysaan. xam hmm. naa noonu lay jeexee. Hmm. te ma ko waxee noonu la amee. du nga koy loolu mu rëpp nga egli ko. kon combat bi dana jaaxaluma ci. yow daal bi ngay dem daal jàppoon nga ne moom. xamoon naa ne waaw xamoon naa ne yàgg yàgg yàgg dinaa ko daan moom. te bu ma koy daan boot laa koy daane. boot nga koy daane waaw xamoon naa loolu. waaw bu nekk am tur tam bu am ginnaaw nga jóge ci moom tey foo teg sa bët. waaw fi ma teg sama bët booy mooy ci kaw rek parce que booy xool sax ñu ngi am na jamono may démarché moom xam naa ay fan yu néew rek jàpp naa ne combat mm-hmm. na ñoo xamante ni tey bëgg nga a mën a ngir gën a mën a wane sa bopp waaw sama combat ak ndigal ñu ngi ci mm-hmm. ndigal booy ngi ci mm-hmm. am na it beneen adversaire boo xam ne ni sàmm mu ma koy proposé waaw ñu ngi si daal instant yi moom xam naa ay fan ay deux jours trois jours rek jàpp naane ne combat bi na taxaw. mais ñoo xamante ni ngir ngir gën a mën a wane sa bopp combat yu métti daal. waaw combat yooyu xam nga tey ndigal moom. Mhm. soma combat ndigal moom xam ne bu taxawee dina métti. te aussi combat bu neex lay doon. waaw ak yeneen ak yeneen bu dul ndigal sax yeneen combat ngi fi. Mhm. waaw ay booy xool tey euh, Alioune ay Alioune Seye junior a ngi noonu. waaw même maa ngi dégg sax ñu naan Tapha jox nañ ko victoire bi même sax bu ñëwee ma wane ko waaw ñooñu ñëpp ku ci ñëw baax na waaw ñooñu ñëpp ñooñu ñëpp ku ci ñëw baax na ñooñu ñëpp ku ci ñëw baax na hmm. Ndongo Lo sax ñu ngi doon wax waaye Ndongo moom hmm. du ma ko parce que doon non champion la mais dañu fay dox ay suñu combat ay menti fois moom dox nañu fi sama combat ak moom hmm. ah ci li promoteur yi wax boog mu ne moom du bëreeg bawal bawal yi waaw te boobu yàggul dara mu teggi jël kéwél maa foog ne foofu la foofu lay gën a nooyee quoi far mu dem Kewel defaral ko. Mhm. Mhm. Mhm. mais jamono ji daal yow daal bu ñu bu ñëwoon nga ne doo mais bu ñëwee jël ko moom champion la de Ndongo Lo. non fi mu moom du ñàkk mu nekk si tolof tolof. waaw mbër du mu nekk tolof tolof mais naa ko moom déjà ñoo ko on sax ñu ngi si moo ko on la foofu yaakaar naa gars yi ñu ngi ci naa ko bàyyi ba mu jógee foofu rek. mu seeti leneen ma seeti leneen. xam naa boobu bu taxawul yàgg yàgg bu boolewaat. bu taxawul yow ak yaakaaroon na mën ngeen bëri. Onde la foo. Hmm. bien sûr bu nu ma gars yi terti woon tey tey bu nu ma joxee avance ma lekk ko. nga jël ko waaw daf la <laughs> mooy doomi maire de Kër Moussor. waaw <laughs> bu baax la quoi grand bu cool la borom baax la man fu mu ma gis day ree rek naan ma jéeli. Hmm. mais nag du tee bu ñu làmboole woon dañuy bëre de waaw dañuy bëre ba mu saf. waaw moom ba mu waaw pour 100 bawol bi est koy dund. waa 100 pour cent Bawal bi waaw gars yi ñu ngi koy dund ñu ngi koy dund. ñu ngi ko Dakar Bawal yee fi ëpp. waaw Dakar Bawal yi moom moo fi ëpp moom. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw ñu ngi koy gars ñu ngi koy dund ñu ngi koy dund moom. Mm-hmm. waaw ñu ngi koy dund. est-ce que taxawaay bi ci war tey koy jëflante si biir. waaw taxawaay bi moom des na moom taxawaay bi moom booy xool 100 pour cent Bawal bi moom booy xool taxawaay bi des na des na. mais nag gars yi moom ñu ngi xam naa incha allah xam naa dinañ dem ba xam naa dinañu gën a taxawaay bi dina gën a am doole parce que booy xool ñoom instant yi ñu ciy liggéey. waaw jafe-jafe yi des fois lan lay nekk des fois mbër yi nga gis mbër boo xamante ni ndeysaan problème mu ginnaaw lay am jafe-jafe si yi waaw loolu loolu moom jafe yi moom jafe-jafe mbër moom mënta ñàkk mais nag da tey tey mbër ñi leen war a jàppale tey boo gisee tey mbër boo dekkee ci ci mbër mu ne ci koñ xam nga wala bu nekk ci benn écrit comme comme genre écrit Dakar Paalawato wala leneen ak leneen xam nga. Mm-hmm. te ñooñu waa dëkk bi ñoo ko war a mën a dooleel. Mm-hmm. ak euh, mairie ki nga xamante ni tey moom la fi yàlla teg. Mm-hmm. muy Alioune Ndoye xam nga. di leen wax rek xam nga ñu gën a jàppale parce que tey bër mu nekk tey bu fa mu nekk rek lay tiitaroo ah. waaw muy tey boo nee écrit Dakar Plateau tey boo jógee Dakar Plateau yëpp dañoo war a jóg topp sa ginnaaw. xam nga ñi fi nekk ay homme de loi topp di la jàppale. Mm-hmm. xam nga loolu bokk na ci liy mbër ci liy may mbër doole quoi. Mm-hmm. mais nag booy xool mbër yu bari loolu la ñu manqué boobu noonu la ñu manqué. Mm-hmm. moom souvent booy xool bala laa jàppale nga dem ba mënal sa bopp. boo mënalee sa bopp daal ñuy doog a bi moom da ko raar. lu mu nag raaroon naa ko mais xam préparation yi laa nekkoon ak combat beeg yooyu. waaw te euh, xam nga tey am na gars sax boo gisee boo jëlee yéen combat yi dem ci mbapat am na loolu boo ko defee rek te combat day commencé bëgg a yàqu te adversaire yi commencé loolu hmm. mais fi mu ne nii nag comme euh, combat bi jàll na ñu ngi ñëw à bientôt rek ñu ngi ñëw incha allah demoon njaay ñu bu mag gisuñu la si. 5 euh, millions yi boobu nag euh, dafa fekk. nga doon fêté bi daal. non non pas loolu tax dafa am sama yenn sama benn boy boo xam ne da doon ceetal ci dimanche boobu quoi. ok ah. moo tax ñëwoon. waaw man ma ñu desandi ba rek ñu gis keroog seen poulain wala wala ni ñu ko waxee wax seen seen seen ki nga xamante ni tey seen mantoor maanaam mhm. seen njiit njiitu Bawol lépp muy Tapha Tine mhm. wax ci kër du yëngal mhm. rek rek ñëw di ko tëkku naka nga gisee loolu waaw moom am na droit xam nga mbër moom mbër moo gis ah, loolu moom garaawul quoi parce que tey mbër na ngay gis mbër moo xam ne ni tey day mën naa wàcc ci stade nga gis koo xam ne lay leer na tey moom moom bu ñu leen tëjee mu gaañ ko te du tee mu di ko dëkk loolu yëpp moom loolu yu garaawut waaye la leer na ñoom ñaar làmbooleegu leen quoi du léegi quoi parce que Reug Reug ak Tapha Tine instant yi hmm. làmbooleegu leen. kon tëkku mbër daal aayul daal. tëkku mbër aayul quoi mais nag taxul ngeen bëre. Hmm. mën nga ta mën ngay tëkku mbër te du tax ngeen bëre quoi. en tout cas Tapha Tine ko gën a da koy rey loolu la wax. Mm, non ñoom ñaar bu leen tëjoon fii ko def loo def ko. rëg rëg ndaanaan la de day bëre de. non rëg rëg kenn du rëg ko man rëg rëg doon bokk nañu ay maintes fois ay tournoi ndaanaan la loolu moom kenn werante wu ko. te bu ko ko itam da ngaa te aana ci te aana ci lam non lam da leen a booleeku. lam booleeku leen loolu moom tey gis boo gis ponkol. rëg rëg des fois sax booy xool daan day da daan ponkal. mais ci côté sax am na côté boo xam ne xaw na cee tële ponkal parce que am na souvent ponkal yi bu tax rek ñoom nii da ngay gis ñoo xam ne nii day négocier ba génne boo xamante ni moom ci kaw la ne diis gan yori rafaa la mag yooyu. non kooku pour. ndem moom ay kurfeñam la. voilà mooy noonu kooku comme kuy bàcc gerte moom. voilà instant yi moom tafaatin moom rëg rëg moom bu bu bu na jël booy ba ci kanam parce que tafaatin du moromam quoi. tafaatin du moroom ñu gis ne moom tam combat am day jafe jamono jii nii tey pour mu bëri rek problème lay nekk. nu mu demee noonu. waaw mais boo gis combat moom gars yi ñu ko war a hmm. que tey booy xool ay ñoom Eumeu tafaatin. Hmm. mais lan moo tax pourquoi pas mën noo jël tafaatin loolu di ko teggee. Hmm. loolu kay moo dañu koo ragal rek. waaw tafaatin ko jël dañ ko ragal loolu combat daa ko ko de. waaw combat yooyu combat moom combat la moom. mais nag na fekk gars yi ñeme koo jël rek waaw hmm. mbër moom xam naa ne combat du tàggee moom quoi. non non combat du moom. moom Ndiol la géant de Baol. waaw géant de Baol la daanaan la de moom. Hmm. waaw daanaan la de. Hmm. américain la. Euh, kon lan ngay tëjee rek si gàttal. waa li may tëjee mooy euh, xam euh, di wax gars yi ñu gëstu waa plateau quoi. leader bi non man mi maay man bi. man maay leader bi waaw. Mhm. mais tey booy xool gars yi fa ne yëpp xam nga. Mhm. dañoo war a ami combat quoi di bëre waaw promoteur yi waaw. Mhm. ku ci mel ni ñoom Idaale xam nga ay ñoom Saam ak. Fallou Ndiaye ñoom Fallou Ndiaye gars yëpp Assane Ndiaye gars yëpp daal maa ngi leen di xam nga. ju geestu gaay ko quoi xam ne ay champion rek moo fi nekk te dañoo war a bëre. xam nga tey booy xool musa mi tey war ma mën a laale quoi. ay ñoom gërënaatin ñoom dimbali gars yi dimbali sax mën naa. état yi waaw gërënaat moom daan na wàcc si mbapat mi. waaw day wàcc non état yi mu ñëw. Mm-hmm. état yi xam naa day pare rek. Mm-hmm. waaw voilà bala maa tàggatoo jox champion bi rek xam nga mu am. waaw avant TV moom di leen ñaanal rek. parce seen liggéey wax dëgg si yàlla rafet na te ñëpp a ngi koy rafetlu. Mm-hmm. Lutte TV ma yeboon international la. Lutte TV international la fii que fii gars nekk fii ba Europe bu combat jàllee la ñu jëkk a toog boo ku la woo danaa la seetaan naa ko Lutte TV. Mhm. xam nga kon boog lool moo leen di wane seen liggéey rafet na trop xam nga mhm. di leen ñaanal daal xam nga mu dem ba nekk ay télé. amiin télé télé ci barke Sëñ Fallou yàlla mën na ko te yàlla na ko yàlla dem. ñu ngi la jaajëfal waaw. Thiambar ziar naa la. na ngeen def. tey ñu fekk seen booy rek seen seen seen seen naataango ngeen bokk écrit muy Thielly loo ñu mën a wax ci moom. Thiel yi Thiel yi moom li ma ci mën a wax ci moom bëri na lool moom mhm. borom baax la champion la aussi. Mhm. waaw toj na lu ne moom. Mhm. waaw def na lu ne ci làmb. waaw mu nekk ci mu nekk ci làmb ji ngeen ngeen bokk nekk tey est-ce moom bëgg na làmb ji respecté na làmb ji parce que des nga gis mbër boo xamante ne dina mën a bëre waaye du respecté làmb ji lool lool. non moom respecté na ko trop. bëgg na ko te respecté na ko aussi. Mm-hmm. Mm-hmm. kon loo koy ñaax rek si li ko dese ci carrière am. waaw li ko dese ci carrière am daal ñoo maa ngi koy ñaanal moom lu mu bëgg ci carrière am daal yàlla defal ko ko. Mm-hmm. ci kattanu yàlla. ci kattanu yàlla. waaw looy wax waa Sénégal kon. waaw Sénégal ñi lay seetaan quoi ñu wax ñi ñi bëgg waa Bawol ñi bëgg écrire Dakar Plateau. ñu ñaanal ñu daal. ñu bëgg nañ bëre trop aussi. nañ ay combat aussi soxla nañ ay jàppale bu baax aussi. waaw loolu daal bëgg nañ ko aussi bu baax. kon ñoo ngi lay jaajëfal jaajëf